jullit dafa war a fonk yaayam waxtu wu nekk waru ko wutal bés waru ko wutal weer waxuma la ak at waxtu wu ne dafa ko war a jox ab mooy ki ko ëmb juróom-ñeenti weer bañ laaje yonent xaaj na mbëggeel gi ñeenti xaaj ñett yëpp yaay moom yaay mooy ki nga xam ne boo feebaree ak boo wéree moom bëgg na la ndeysaan donte mi ngi nekk ak bàyyi mooy ki nga xam ne bu neexee ak bu méttee bëgg na la keneen ku wax loolu yóbbu ko liste d'attente amaana lam wax dëgguwut kon yaay booy kenn mënu ko fay lan ko mënaal mooy yaa ngi liggéey yónnee ko loo xam ne day seeral xolom yaa ngi nekk ak moom yëg ko boo xëyee demal nuy ji ko moom rek nga am keneen këdduhut moom yóbbu ko liste d'attente